tey nag tey la 23 juin suñu waxee 23 juin suñu xel dina am si lu mu dem suñu xel day dem ci le 23 juin 2011 ba nga xamante ni nii ay patriotes ñoo jógoon doon xeex projet de loi bu nga xamante ni maître Abdoulaye Wade da ko waroon a def mais tey dama koy wax tout à l'heure ci sama benn interview ma ni maître Abdoulaye Wade war nañ ko rendre hommage parce que le 23 juin boobee bi sénégalais yi jógee di xeex daa daa jël projet de loi ba teg ko ci suuf waaye nag yamuñu woon ca projet de loi ba parce que à la suite dañoo def le mouvement M23 ñu ñu doon xeex ni Karim wadd na génn ci gouvernement bi ñu doon xeex ni maître Abdoulaye Wade na teg élection yu nga xamante ni moom du ca bokk waaye tamit na ko jox organe bu nga xamante ni day indépendant waaye tamit euh, média yi nañu indépendant loolu mu nekkoon euh, ay xeex yoo xamante ni le mouvement M23 daf ko doon xeex tey nag damay wax ni 23 euh, juin esprit la bu ma waxee esprit la mooy am na ñu nga xamante tey ñu ngi fii fekkewuñu woon wala bokk 23 juin 2011 nekkuñu woon ci terrain bi waaye tey ñu nekk ci terrain bi léegi nag la ñu doon xeex lépp dañu continuer di ko xeex waaye nag dañ cee yokku dañu cee yokku ne makki Sall moom mi nga xamante le 23 juin 2011 dafa bokkoon ci ñu génn waaye daa bokkoon ci ñu daw di laqatu ndax moom moo dawoon laqatu pharmacie Gigon makki Sall moomee la ñuy wax ni moom mooy kenn ci Sénégal ku nga xamante ni mënatu a bokk élection loolu lu ñu waxoon Abdoulaye Wade la waaye dañ ko koy rappeler li ko wax ni ko lu sommes plus que déterminés à ce que jaral nañu suñu ay bakkan Macky Sall moo bokkatul ci ay élection déguisement bi lu ko waral mooy boo gisee ñu sol déguisement bi pour lancer message président bi la parce que boo gisee ñun dañoo nekk ci secteur informel waaw secteur informel am nu mu demee noo xam dafa métti si ñëpp muy si wàllu menuisier bi tailleur bi mécanicien bi ñëpp ñun nag bant dafa cher contre plaque dafa cher du doon jar 4000 léegi mi ngi jar 7000 bant bi tam cubage bi cher na mi ngi ñu ngi doon cubé 300 200 léegi cubage am na 300 am na 600 dafa cher trop dañoo sonn loolu tax ñu lancé appel président bi ne ñun dañoo son on en a marre Sénégal tampi Grand Yoff tampi rek. non du si président kese parce que ndimbal fe affaire boo gis fépp la mais ñun fu ñu koy xaaree. ñun bu ñu demee pour jëndi bant fa ñu jaayee bant naar ñoo yokku prix bi ba nga xamante ne bu ñu waree jënd ñu ne temps lañ koy jaay yokku kibage bi affaire du cher ñun côté boobu lañ koy xaar ak meuble importé bu muy kii mu bañ ko fi dugal parce que ñu dañoo sonn parce que boo xoolee boo xoolee ministre dañu xeeb bu ñu bu ñu waree ñëw liggéey fii Sénégal ñu dem préféré dem jënd extérieur seen importé kon ñun nan la ñuy liggéeye nan lañ gisee suñu bopp mu si téyeer bi mu si maçon bi muy dañuy dem jëli ouvrier feneen kon il est ñu xoolaat secteur informel bi xool ni ñu ko réglé ñëpp mën see jot ñëpp mën see sant seen bopp xaaruñu leen nag. li ko waral xam nga ñun dañu juddu retraité keroog ba ñu juddoo la ñu retraité la ma doon bañ nag loolu laa gis ndax xam nga lu tax moom laa gis ndax dañu tollu jamono joo xamee ne d'accord ñoom nangul naa leen tey ndax bu njëkk ba ba ñuy xeex ab Ablaye Wade man dama leen contrôle mais tey jii dama xamee ne ñoom ñoo nekk si dëgg seen dëgg gi ñu nekk man dama leen ci fekk looloo tax ma bàyyi sama kër boor sa boor a tëdd mais dama jóg pour jàppale samay jarbaat ndax damay bañ ñu am naissance de retraite li ma leen di conseiller mooy li ñuy def ñoom seen bopp nañu toog ñu waxtaan ba déggoo ndax buñ bu ñu waxtaanee ba déggoo ci dinañu lu ñu bëgg a tëral dinañ ko tëral moo gën ñuy bu ñuy waxee fii ñuy wax fii nañu def seen benn communication bu xam ne day leer naññ ndax la ndax nañu seet ne am nañu mag ñu nekk seen ginnaaw bëgg leen te mënuñoo ñëw seen réunion te ñu ngi toog seen biir kër kon nag nañuy nañuy waxtaan laata ñuy génn si bedd nañu waxtaan ñoom seen biir ndax ñun ba ñu nekkee si ba ba ñu nekkee ba euh, jamonoy Senghor ba ñuy demee ba potu meew di jar ñetti dërëm école da ngay dugg école sax ñu lay jox meew pour nga bañ a génn jamono jamono jooju sax moo tane ndax lan Ablaye Wade dafa ñëw dindi ne français yi kii dafa ñëw ne ñu yéen man sama bopp maay doon gouverneur du sax ambassadeur gouverneur la. ñun gouverneur la ñu am ñun sénégalais yi ñooy ñooy gouverneuru France ndax lu lu neex France moo ñu neex. bu ñu amee euh, culture bi pour suñu beneen président dañ koy tànnee si xale yi xamee ne dañoo yàgg xooxlu ndax xam nga lu tax ku yàgg xamee ne dafa yàgg toog si gouvernement mbaa ki xamee ne dafa ñëw ñu falee ko si gouvernement du ñu waxal dara ndax France koy mo koo gi dañu war a am culture africain li Sékou Touré daan woote nañ doon ay des des africains te bañ a doon des des des européens. africain bi ñu war doon nañ ko nangu